alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man walah amma baad mbokki jullit yi tàmbali woon nañ ci benn xutba bu jàll eh, waxtaan wu jëm ci développement muy nan la ñuy def ba jëm kanam am ay tomb yuñ jiitaloon ci taxawaay bi ñuy fàttali ne lislaam ci wàllu jëm kanam daf cee am aw gisiin ak aw doxiin woo xam ne bokkulewu ko ak wenn tëriin boo xam ne doomu aadama ko tër bokkaliwu boo xam ne doomu aadama yi ñoo ko tër lislaam la muy tàmbalee mooy defar nit ki ci boppam nit ki su defaroo ba baax tegu ci yoon wi ko lislaam bi teg gépp jëm kanam ci wàllu développement day ñëw gannaaw la lislaam du dugg ci biir détails yu sew sewaan yi ci biir di la wax ne boo tabaxee lii boo defee nangam boo defee nangam da nga am sam réew dana développé waaye defaral nit ki suñ ko defaree ba mu mel ni nit war a mel ci tëgg yi nu lislaam su noppee yi ci des yépp day ñëw ñëwin woo xam yomb la loolu nag dafa am ay base yoo xam ne lislaam ci la ko teg lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu jëflante ci wàllu alal yi àdduna ji nga xam ne moom lañ tudde développement ci gisiin yu gàtt yi lislaam jox na ko itte ndax organiser na ko dafa am ay base yoo xam ne ca la déparé ba ca jëkk moo di ne alal yàllaa ko moom loolu la jullit bi loolu la ko yàlla la ko lislaam bi jëkk a gëmloo mu xam ne alal ji borom bi tabaraka wa moo ko moom ndax yàlla moom i kat moo ne walillahi mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma yàlla nee na maa moom suuf ak asamaan ak li dox ci seen diggante kon lu fi tàbbi ci sa loxo xamal ne alal yàlla moo tàbbi ci sa loxo borom bi moo ne na ngeen dundule na ngeen dépensé ci li nga xam ne yàlla moo leen ko dénk mimma jaalakum mustaxlafina fii li nga xam ne borom bi daf leen ko dénk nee na na ngeen ci joxe borom bi nee na wa aatuuhum min maalillahi alladi aataakum alal ji leen yàlla jox joxe leen ci kon jullit bi loolu lay jëkk gëm xam ne alal bii tege ci loxoom yàlla moo ko ko jox waaye nag joxu ko ko joxu bu may waaye dafa koo dénk lew na ko nag su fekkee ne ni mu ko fàggoo lew na waaye lewin weer daa am yuñ ko sant ne ko def ko ci ginnaaw gëm na ne alal yàlla la kon dana ci jox jaami yàlla yi ginnaaw gëm na ne alal yàlla la dana ko def ci li yàlla li yàlla ne loolu moo dagan waaye lu mu ne daganut du ko ca def kon gëm-gëm boobu la jullit bi di déparé mooy alal alalu yàlla ñaareel ba moo di ne lislaam ànd ak ne nee alal alalu yàlla la nangu na ne nit ki dana moom li nga fàggu lew nangu na ne yaa ko moom moo tax borom bi tabaraka wa taala lu bari ci alquran da ngay jàng gis alal ji mu askane ko nit ki comme wala taakulu amwaalakum nee na bu leen lekk seeni alal ci ak neen maanaam bu leen lekkante ay alal ci ak maanaam naxante waxaat ne wa fi amwaalihim nee na seeni alal yi nga xam ne ñoo ko moom àqa nga ca joo xam ne ñi ñàkk ñoo ko moom muy asaka kon lislaam nangu na ne nit ki dana moom alalam donte alal nag yàllaa ko moom su fekkee xool nañ moomeel gi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala dafa saxal ne moo moom alal ji moo moom li nekk ci asamaan ak suuf ak li dox seen diggante kon kooku la muy jariñ mooy wàllu orientation la ndax nit ki xam ne kat ginnaaw alal ji alalu sunu borom tabaraka wa la kon am na lu ko tax a jóg moo di def ko ci loo xam ne luy jariñ la waaye doo ko def ci loo xam ne luy lor la wala mu doon loo xam ne luy yàq la ndax alal jàmbur la loolu nag saa boo xamee ne am na mu wóor ne nit ñi ñu ngi fàggu te ci lu jariñ lañ koy def su boobaa li ñu tuddee ak tanmiyal mustadaama mooy am ngëm gënam saxe ci xol yi développement bañ doon wut noonu lay saxe ci kaw suuf ñu di ko gis loolu ñu tuddee développement durable durable nga xam ne mooy bu sax boo xam ne du am fu muy yem daanaka euh, loolu lay jur su boobaa am maa nag moomeel gi nga xam ne boroom bi saxal na ko nit ki ne ko alal ji da ngeen ko moom kooku lam koy jariñ mooy su boolee yaar yooyu yëg ne moom na loo xam ne boroomam a ko ko jox moo di na ko jëfandikoo ci li dagan waaye na tënku ci tënk yi nga xam ne ki ko joxoon alal ji moo ko ci tënk ne ko defal nii defal nii bul def lii bul def lii loolu moo tax lislaam dafa tere lépp loo xam ne luy lor keneen la ci sa alal lépp luy lor keneen ci alal ji na koy koy boo ak na nga koy dépensé bu ci lor nekk la darara wala dirar bul lor bul lor keneen tere na ku fàggu alal itam di denc rek nga xam ne du génn lu xas dugg ci sa loxo dootu génn déedéet lislaam dafay tere loolu dañoo bëgg a xaqi sunu borom tabaraka wa taala jim la génneloo na nga ko génne jox ko ñi ko moom laj na ci bopp mooy asaka borom bi tëkku na ñi nga xam ne dañoo am alal te nangu joo joxe fi sabilillah moo tax mu ne ñi nga xam ne dañuy nëbb alal walladina yaknizuuna aldahaba walfidda ñiy nëbb alal wala yunfiquunaha fi sabilillah te duñ ko nangoo joxe ci yoonu yàlla du asaka du sarax du maye du lenn luñ fàggu xas jot ca rek seen intérêt bopp rek ci lay dellu nee na ñooñu fa bashirhum bi adabin alim nee na ñooñu sooy boobu nga yëgal leen ne mbugal mu mettee ngi leen di xaar nee na bu ëllëgee alal jooju ñu dencoon bu doon ay këyit sax dañ koy delloo ba mu dellu ci cosaanam mooy or mu doon ay pièces yoo xam ne or lay doon ak xaalis ñu tàngal ko ci sawara ba mu tàng di ko ci ñaas ne ko mosal li nga dencoon mu ngo wëlbatiku noonu mu teree denc ko bañ cee dépensé ci yoonu yàlla noonu la teree itam nit ki denc ko bañ cee commerce alal bi lislaam dafa leen a dugg ci biir askan wi tasaaroo nga liggéey ci ñeneen jariñu ci mu doon loo xam ne luy jur njariñ la moo tax li ñu tuddi ixtikaar muy nëbb loo xam ne nit ñi dañ koo aajowoo kooku dafa xaraam ci sharia léeg-léeg commerçant bi def ko stocké ceebam bu bare bare bari boo xam ne nit ñi amatuñu lu ñu lekk mu denc ko ba mu gën a cher mu door koo génne di ko jaay kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku nëbb dara benn benn marchandise ku ko nëbb fekk lam ci jublu mooy seeral ko ci kaw jullit yi maanaam mu seer ci kaw jullit yi nee kooku gàddu na bàkkaar bu mag fa huwa xaati noonu la ko jëfandikoo beneen ba mu ne te moo gën a tar nee na képp koo xam ne denc na marchandise te fekk lu julli di aajo woole ci seenu lekk wala seenu naan wala seenum col lañ mënta ñàkk nee na kooku ëll borom bi tabaraka wa taala dana ko nattoo feebar yu metti akuk ñàkk alalam ngaana la jël joxe ca misaal ngaana la jël joxe ca waaye feebar la ndax loolu dafa xaraam waxoon nañ la ne li léwut li loolu du law la ci jëkk mooy day day du jëm kanam ku ca regg itam da ngay ràgg maanaam feebar moo lay gaar moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dana ko nattoo ak ngaana aku perte mooy alalam dana jeex tàkk te itam feebar yu métti métti mën na ko caa jële tëkkuwoo boobu eh, tëkku la goo xam ne doonut bu yeex fii la tëkku gu yeex ga moom mooy ko bashirun bi azamin alim kon kooku ci bakkaar yu mag yi la bokk yi nga xam ne jullit bi daf koy wattandiku te it mboolem ñiy gëstu ci wàllu koom-koom muy wàllu économie xam nañ ne jël alal joo xam ne nit ñi aajowoo nañ ko nit ki denc ko kooku intérêt personnel képp lay jur waaye day daaneel askan bi ci boppam te loolu nag la lislaam di bañ loolu moo tax bépp tënk boo xam ne lislaam tënk na ci ab jullit ci wàllu alal ne ko lii defe ko nii waaye bu ko defee nii fekk na la muy jariñ moo di ne jiital intérêt mbooloo mi ci intérêt kenn ndax lislaam dafa ñëw ngir ne ñépp texe na ñépp dund dund gu baax waaye dikkul ne na sàmba dund dund gu baax adduna ak li ci biiram alku wala na ba dund dund bu baax adduna ak li ci biiram alku dafa ñëw ne na ñépp góorgóorlu ba dund dund gu baax ki amul tey def aw ñaqam di góor góorgóorlu def lu mu mën jël leen ci li ngeen am jox ko mu gën a ñaq ndax mu am moom itam mën a jox keneen lislaam noonu la noonu la tëre ñetteelu baas bi nga xam ne lislaam ci la teg mbirum koom-koom ak alal ak jëflanteeg moom moo di yàlla sunu borom tabaraka wa taala dafa jàpp ndalal nit ñi moyens yi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo ngir mën a fàggu alal yépp yombalal na leen ko wax na ko ci alquranul karim nee na yàlla moo bind asamaan ak suuf moo wàcce ab taw jële ko ci asamaan si taw boobu moo ci génne gàncax ak meññit lu tax mu def ko nee na rizqan lakum nee na loolu lépp da koo def ngir mu doon seen wërsëg ngeen jariñoo ko wa saxara lakumul fulk nee na mu tàggatal leen gaal goo xam ne day daw ci kaw géej gi li tajriye fil bahri bi amrihi su dul woon ndigalu sunu borom tabaraka wa taala ak kattanam ak xel moo xam ne sol na ko doom aadama xel munta xalaat ne gaal ak nam tolla ko diisaaya mënees na ko teg ci kaw ndox mu tege ci kaw di dem nee na loolu ak tàggatam la tàggatal leen dex yi ngeen mën a jariñu ci am ndoxam ci seen mbay ak seen leneen nee na mu tàggatal leen jant bi ak weer yi yooyu yépp doon ay moyens yoo xam ne ay source lañ yoo xam ne buñ ci jariñoo mën naa jot ci wàllu économie loo xam ne kenn xamu ko nee na mu tàggatal leen guddi ak bëccëg kenn ku ci nekk am njariñam am lu mu féetewoo ci waxtu liggéey ak waxtu nopp noppalu nee na yëmut ci tàggatal leen yooyu waaye daf leen a ca booleel ne lépp lu ngeen ko ñaanit mu may leen ko kon mooy wane ni yii mu tàggat yemu fa waaye dana leen ubbil yeneen bunt ci kanam yoo xam ne yu ay koom-koom mën a jóge la li fekk yéen a ngi jaamu seen borom tabaraka wa taala di ko tàllal seeni loxo di ñaan mu di leen ubbil ay bunt yoo xam ne bunti xéewal moo tax mu ne wa in taxuddu nicmatallahi laa tuxsuuha su fekkee ne da ngeen di jiima lim xéewali sunu borom tabaraka wa taala yim leen defal nee du ngeen ko mën a wàññi mun leen ko compter ba xam ñaata la kon bépp moyen boo xam ne doomu aadama yi da koy jëfandikoo muy doon koom-koom borom bi tabaraka wa taala wàcceel na ko nit ñi jàpp ndalal leen ko la ca des kay mooy jàngi xam-xam ya ak gëstu ko ak nangu caa sonn ak am ay décision yoo xam ne nangu nañoo taxaw jëriñu ci loolu yi leen suñu borom tabaraka wa taala jox boo gisee jullit yi nga xam ne ñoo jàng lii ba noppi féete gannaaw mooy liñ jàng ba noppi dañ ca teg seen tànk ñu benn effort defuñu coono ñeneen ña nga xam ne jànguñu lii wala su fekkee jàng nañ ko dugg nañ jaar ci yoon yi borom bi tabaraka wa taala wax muy nangoo gëstu nangoo jàng nangoo essayer lenn lu nekk nga dugg ci ba mën a trouver lu am njariñ ñu fexe ba def lool ndax borom bi tabaraka wa bi muy wàcce lii néewul dama ko wàcceel jullit bi wala keneen waaye doomu aadama yi ci seen bopp seen wërsëg la ku ca gën a nangoo sonn da ngay gën a nangoo trouver aw yoon kon su fekkee ne ak jëm kanam bëgg nañ mu am faaw nag ñu del siwaat nag ni ñuy jàngee suñu diine nu jàngee noonu itam àdduna liñ soxla mooy nit koo xam ne àdduna ji daf cay xóot ba xam ko waaye fekk lislaam defar na ko nag ba mu baax boo xoolee geneen wet ga ca des dañoo xóot ci àdduna ba àgg ci foo xam ne jéggi na dayo waaye nag nit ñe defaruwuñ moo tax la ñuy defar dañ cay defaraale loo xam ne mën naa xëy faagaagal àdduna ci bis lim mën a faagaagal ci ay doomu aadama kenn xam nu mu toll yàq gi gi am ci àdduna kenn ku koy gis liñ tabax ci téeméeri at dañuy ci ñetti fan daal di koy màbb mu delluwaat zéro kon loolu nit ku defar wut moo koy waral nit ka lislaam juflu nag du kooku mooy ki nga xam ne dañ koo defar ba su def su tabaxee du ko toj muy continuer di tabax nag ci loolu lay demee ba askanu doomu aadama ci boppam texe ci kaw suuf jullit moom texe àdduna ak àllaaxira loolu nag ngir mu am mooy yooyu nga xam ne suñu borom tabaraka wa moom la wàcce ngir nu man cee jariñu am na ñaari mbir yoo xam ne eh, kenn ku nekk war na la nga taxawe ko maanaam moo ci sa wàll yow biir askan wi nga nekk doon fa kenn ca biir kër ga ca biir koñ ba ca biir quartier ba ca biir dëkk ba ca biir réew ma jàppal ne lii may tudd war na la yow benn moo di al liggéey liggéey kenn ku nekk liggéey war na la amul koo xam ne dañuy wax ne diw war a liggéey diw wërta liggéey diw ci askan wi la bokk diw bokkul ci askan wi diw nii la toll diw nii kenn ku nekk fa nga toll mën ngaa liggéeyee noona liggéey bu ko waxee mooy bépp effort boo xam ne doomu aadama daf koy jox joxe bépp effort bépp coono bépp activité boo xam ne doomu aadama ji da koy joxe moo xam yëngatu ci yaram la moo xam ci xel la waaye ab liggéey la te fekk la muy def lu dagan la ci sharia yoru lislaam nangu na ko tam am njariñ loo xam ne day delsi ci moom di delsi ci askanam loolu la lislaam di tudde liggéey liggéey moomu nag tabax kaw suuf bi yàlla waxoon ne da leen ci wàcce ngir ngeen tabax ko waxul ne ngeen toj ko kooku liggéey mooy baasu baasu loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala ci alquranul karim li ci nekk ci aaya yuy soññee ci liggéey kenn xam nu mu toll bokk na ci fi muy wax mu ne yàlla moo leen tàggatal suuf si ba mu mokk mu ne famshu fi manakibiha dox leen ci kaw suuf si ngeen dem liggéey wa kulu min dafa mel ne kon dox bi ci kaw suuf si ak def effort moo war a jiitu lekk door cee tegu adduna li koy tukkil mooy ku toog di lekk te liggéeyu ndax lekk moom ginnaaw mënta ñàkk kii liggéey na def effort boo xam ne moom dana ko mën a lekkal ba keneen mën caa mos yóbbaale kenn su loolu amee àdduna neex waaye su fekkee ne ñiy liggéey tuuti la ñi toog di xaar ñay liggéey nag doon ñu bari loolu mooy delloo gannaaw aw askan moo tax daf ne fam suufi manaakibihaa dem leen liggéey wokkuloo kuluu su ngeen liggéey ba noppi da ngeen door a lekk waaye néewut lekk leen ba noppi toog borom bi waxaat bi muy tudd ñi nga xam ne dañuy jihaad fi sabilillah yeeg ñi nga xam ne dañoo nekk tudd na ñoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf si di dem di fàggu ñu wërsëg di dellu di dellu si dañuy dox ci kaw suuf si di fàggu ñu wërsëg moo xam ci wàllu commerce la moo xam ci wàllu façon liggéey bu mu mën a doon na doon bu dagal rek borom bi tabaraka wa taala na mooy ki leen indi fii ci kaw suuf hmm, wa yastaxlifakum fil ard mooy ki leen indi fii ci kaw suuf waaye nag mi ngi xool ba xam lan ngeen di def fa yandura kayfa taamaluun mu xool nag lan ngeen di def kon dikku leen fi pour toog dikku leen fi pour nelaw dikku leen fi pour tayeel waaye da ngeen ñëw ci kaw suuf pour liggéey xam ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi xool ba xam lan ngeen di def ñaari mbir yi leen séq muy ñaari liggéey yi muy jaamu yàlla bu aju ci sha'air yi muy julli yeeg yu mel noonu ak liggéey bi nga xam ne moo aju ci fal fag bu wërsëg bi nga xam ne ak jaamu yàlla la moom mu war laa jëriñ war a sa askan borom bi tabaraka wa taala waxaat ne yonent bi wax leen waxal ñii ne leen nañu liggéey te xam ne yàlla akub yonentam danañ ci seenub liggéey borom bi tabaraka wa taala wax ci bisu àjjuma mu ne su fekkee julli nañ àjjuma ba sëlmal nee na tasaaroo tasaaroo leen ci kaw suuf si dem liggéey dem liggéey kon nga xam ne lislaam amul ay feet yoo xam ne nit ñi dañuy xëy di toog ku sonn gaa ma mën ngaa dem noppalu ji waaye bis boo xam ne dañ naan lii bu ñëwee bu kenn dem liggéeyi lislaam amut loolu bisu àjjuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxal na ne mooy feetu jullit yi maanaam semaine bu nekk am nga ci feet ndax bis la boo xam ne dangeen ngeen bokk dajaloo yéen ñëpp ci jàkka ji bàyyi li ngeen doon def ka doon liggéey bàyyi liggéeyam ka nekkoon ci biroom bàyyi biroom ngeen ñëw dikk daje ci jàkka ji julli waaye waxul ne nag bis boobu da ngeen di nelaw moo tax mu ne fa ida qudiyat bu julli nga jeexee fantashiru fil ardi tasaaroo leen ci kaw suuf si wabtaxu min fadlillahi ngeen dem sàkku ji wërsëg bu jógee ci seen borom tabaraka wa kon bis bu ñuy nelaw wala bu ñuy tayal wala bu ñuy xëccoo naan bii nañ ñu ko defal feet ak nañ ko defal bee loolu amut ci lislaam kon yooyu yëpp ay soññee la yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi borom bi tabaraka wa taala day soññee ci sunna ci ci liggéey sunna itam noonu la soññee nag ci liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na amul benn jullit boo xam ne dana jëmbat benn meññet jëmbat benn jëmbat mooy nga jël garab gi ñëw wàqi ba mu xóot nga samp ko di xaar sa borom tabaraka wa taala mu dundal ko màggal ko meññal ko nga topp topp nee na amul kenn koo xam ne dana jëmbat benn garab nit lekk ca wala picc lekk ca lu dul kookee lam ca lekk sarax la moo xam yëg na ko walla yëgu ko lam ca lekk sarax la moo xam yëgu na ko wala yëgu ko kon yëmul rek ci ne li nga bay ba àggal nga yëkkati ne ah jaamu yàlla bi am yàlla jox la daal di koy sarax yëmul ci loolu waaye su fa nit jaaroon dagg sa doomu mango bi lekk ko wala sa doomu gerte bi mu yëy ko loola sarax la ci moom bu picc jaaree foofa mos ko loolu sarax la ci kooku day soññee ci liggéey day soññee ci jaamu yàlla bi mu dem liggéey beneen bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee nit ki munta lekk ñam wu gën a lew wi mu liggéey ci loxoom nit ki mënula lekk ñam wu leewee ni wi mu liggéey ci loxoom kon ñam wi ñu la may sax nga xam ne dañ koo jël may la ko nga moom ko wi nga liggéeyal sa bopp moo ko gën a lew ci yow kon kooku jom lay joxe yow da ngaa war a góorgóorlu ba bokk ci ñiy joxe waaye doo bokk ci ñiy tàllal moo tax mu ne al yadul ulya xayrun min al yadi sufla loxo bi féete kaw nee na toujours moo gën loxo bi féete suuf kon góorgóorlu ba bokk ci ñi nga xam ne seen loxo day féete suuf kaw di joxe waaye bul nangoo na sax wala nga sàggan ba koo toll fu nekk da ngay fexe ba sa loxo di féete suuf ngay laaj foo toll dëgg la jullit bi dana toll situation boo xam ne sharia dana ko may mu laaj ba weesu situation booba waaye nag def ko métier nag yalwaan ak laaj ak tur wuñ ko mën a jox ci àdduna kooku ak nasax la ak dellu gannaaw la ak suufe la te lislaam bëggul jullit bi mel noonu dafa bëgg mu doon ku ku mat ku am fulla ku góor góorlu ci ab ndax mu mën a bokk ci ñuy joxe waaye bokk ci ñuy laaj suñ société yi nag boo xoolee da ngay gis ne li fiy gàllankoore ci liggéey dafa bari lu bari ci nit ñi buñ toogee xalaat dañ naan liggéey daal yoon gudd la yoon bi dafa gudd mën ngaa liggéey lu yàgg te doo am alal loola tax ñu jàpp ne alal moom euh, diisu ca xool bunt bi liy dagan na ak liy xaraam la fexeel ba am ko loolu moo tax ci jamono ji li am ci xeeti riba yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy jëflante ci wàllu njaay ak jënd ak jëflante bari na lool li am ci ay xeeti carte yoo xam ne jox nañ ko ay tur te fekk lépp mooy carte gi lislaam araamal rek li am ci ay xeeti këf alali jàmbur fëkk ko ak xeeti sàcc ak xeeti exploitation doomu aadama yi te fekk joxoo leen seen àq ak xeeti warante ci biir alal lépp alalu jàmbur bañ koo delloo wala nga nax ko ba yóbbu alalam wala ñu teg la fi béréb ngay liggéeyal nit nga coppati ndànk naa ko di yóbbu di yóbbu ba mu yàgg mu doon lu bari loolu tasaaroo na ci askan wi tasaaroo boo xam ne jéggi na dayo ba dem na ba àgg na ci ne alal nee nañ dañ koy liggéeyanti waaye kenn du ko liggéey kooku musiba la su fekkee dem nañ ba yaakaar ne liggéey moom doonatul yoon wuti alal waaye dañ koy lijjanti kon kooku musiba wàcc na ci wow a xeet war nañoo dellusiwaat xoolaat seen bopp jàngaat yoon yi nga xam ne ci la nit ka di jaar ngir liggéey ndax mu mën a fàggulum dagan mu mën a barkeel aw askanam mën a jëm kanam boo duggee ci buntu yi nga xam ne dañuy gàllankoor nit ñi ci anam googu bari na lool am ba àgg ci ay yëf yoo xam ne sax dañ koo tuddee liggéey te fekk du liggéey xoolal lu nekk ci biir askan wi ci ay doomu aadama yoo xam ne njabar la ñuy liggéey njabar nga xam ne dem nañ ba nangu ko ba di ko yëgle di ko publicité di ci woote di wax ne sama béréb nga sàngam ku bëgg am nangam boo dikkee def nàngam ku am problème mbir yoo xam ne kenn xamut lu mu doon ci àdduna ñi toog ci mbedd yi di jaay ay dari bukkee dari gayndeeg yëpp yi kenn xamut lu mu doon ci àdduna kenn xamut lu mu jëriñ du jeex ñooñu ñëpp ñu liggéeyut lañ ñoo xam ne nax nit ñi pour jël seen alal ak yu mel noonu nag yu dul jeex nit ñoo xam ne dañuy taxaw ne ci turu diine lañ lay wax te bu ñuy wax dañoo soxla nga jox dañoo bëgg nga jox leen boo joxeetoon rek bokkatoo ci kooku musiba la moom itam ñépp dañoo war a dem liggéey amul koo xam ne dañ naan day toog féete woo wax wala koo xam ne day toog féete woo nit ñi ne leen maa leen yoreel tey nangam wala maa leen yoreel ëllëg nangam su ko defee ngeen yoreel ma sama àdduna loolu amul kaay yoral ma sama àdduna ma yoral la sa àllaaxira ku la ko wax ne ko déedéet bàyyi rek ma jéem a yor sama àdduna ak sama àllaaxira nu bokk daje fa ginnaaw ci nu bokk bind te bu ñuy faatu kenn du sa moroom buñ duggee ci suñu bàmmeel kenn ku ne ña lay laaj ma rek ma jéemal sama bopp fii ndax bu ëllëgee ma fekk sama borom lam ma digoon mu jox ma ko loolu mooy yoon bi kooku mooy benn moo di liggéey lu war la yow jullit bi foo toll fu nekk war ngaa liggéey ci sa kem kàttan ca na nga ko mane beneen bi moo di bañ yàq al iqtisaadu fi boo liggéeyee ba am bul yàq borom bi tabaraka wa taala dafa régler doomu aadama ci anam goo xam ne bu sew la ci wàllu am amam wax na ko ci aay yu bari jaami yàlla yim tagg muy ibaadu rahmaan ya muy tagg ci suratul furqaan bokk na ca melokaan yam leen jox mu ne mooy ñi nga xam ne suñuy dépassé du ëpp waaye nag du yées du ëpp waaye du yées maanaam du ëpp bay tuuru di yàq foo jot rek sànni foo jot sànni bu ëllëgee nga toog yor sa loxoy kese duñ def noona waaye nag du yées itam li leen war it nag dañ cay taxaw nam jaadoo kon kooku benn balance la boo xam ne sooy bëgg ne économie ci foofu la tegu balance la boo xam ne économie foofu la tegu mooy li ngay am ak lay génne ci sa loxo dafa war a am nuñ méngaloo noo xam ne lu ca manqué lu tuuti tuuti rek eh, musiba am borom bi tabaraka wa taala nee na bul nay maanaam bul jël sa loxo def ko ci saw loos takk ko mooy ku dul joxe dara waaye nag bul ko tàllal itam ne li ma am a ngoog ku bëgg a jël rek kaay jël nee na loolu soo ko defee da nga toog benn bis boo xam ne da nga réccu da nga am jafe-jafe loolu mooy lu ñuy wax sarxete wala gi nga dem yalwaani waxuñu loolu dangay def li nga man su ko defee la fa des nga góorgóorlu ci boo liggéey nga defaat leneen kooka itam la muy jot mu mën caa góorgóorlu borom bi tabaraka wa taala nee na bul yàq bul yàq ndax nee na yàqkat kat kooka seytaane mooy mbokkam kuñ ne seytaane yi mbokkam nag kooka war ngaa daw innal mubadirin kaanu ixwaana shayatin yàqkat yi nee na seytaane muy iblis mooy seen mbokk kon balance boobu nga xam ne lislaam moom la teg ci ni ngay joxee ca la nga am su yéesee rek nay dugg si na te nay luñ xaraamal la waaye su ëppee rek yàq dikk na te yàq luñ xaraamal la kon aw rëdd wu dox ci diggante bi la diggante def liñ la sant ba nayoo ak def liñ la sant ba yàqoo nga jaar foofu di dox ak mbir la moo xam ne kenn ku nekk war na cee yar sa bopp kenn ku nekk nag nga xam ne la la yàlla sant mooy luy tolloog lam la jox lam la sant moo tolloog lam la jox bul gis kee mu def lu bari nga ne damaa war a def lu mel ne lam def te fekk àttanoo ko kon dangay joxe benn mu jeex nga bokk ci ñi ñi ñuy jox waaye bul am itam gis kuy joxe tuuti nga ne xaaral ma def lu toll ne diw mii kat ndax boo demee moom it am na loo xam ne aw ma ko te fekk kooka dafa joxe lu tolloog la mu am yow xoolal li nga am nga jëfe lu toll noona noonu la ko lislaam santaane ab société nag bu fekkee ne ñaari mbir daf faa daje muy tayeel ak ñàkk liggéey ba noppi yàq yàq nekk fa kon kooku kenn du mën a séentu mukk ne développement man na faa am moom ci wàllu koom-koom ndax liggéey dafa war a am bañ a yàq am ndax kat su liggéey amoon te yàq di amit nekk su liggéey amut yàq amut it koom-koom du fa nekk waaye nag liggéey nekk fa ba noppi nag yàq nekk fa kooku moom musiba la boo gisee nag suñ béréb yi ñu paralysé li ñu dal dal na li ëpp ci askan wi buñ xëyee di soow ne aw moom xëy aw ma nangam coow ko lu mel noonu rek moo ko waral bokk na ci xikami suñu borom tabaraka wa moo di askan wu ne askan wu ne bu la neexee nga ne réew mu ne yàlla wàcceel na leen ci xeeti xéewal lu leen yor ba des lu leen yor ba des waaye nag su fekkee ne xéewal yooyee ñoom fàgguwuñ ko defuñu activités yi ñu war a def liggéeyuñ te lu tàbbi ci seen loxo talaata bu àllarbaa ñu sànni ko mu dem kon ñooñu dañ mën a jëm kanam mukk xoolal li ñuy yàq ci xaalis ci pox xoolal bëre xoolal dajewukaayu foy tëgg fecc caaxaan yoo xam ne da ngay dégg ñi ciy tudd xaalis bu bare bare bare boo xam ne du am benn njariñ boo xam ne buy dellu ci réew loolu bari na loolu xew-xew yi nga xam ne mooy xew-xew yi société bi nga xam ne kuy dund ku nekk day nekk ci biir takk ay soxna ngénte xew nangam li nga xam ne moom lañ ciy dugal ci ay alal bari na bari koo xam ne wëtte na ak lislaam santaane dem nañ ko biir benn jaamu yàlla yi sax ñi ciy dugal yoo xam ne lislaam boole wu ko ci woon ku aji ba ñëw kooku moo ku julli ba sëlmal ak ku woor ba wari ñooyam kenn gisagul ku julli ba sëlmal ne gaa ñu kaay leen ñu daje fii ay ndax dafa julli ji woon kon aj gi ci boppam yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def loolu lu ci bare bare bari ci cadre yàq ci lay nga ñëw ci ay ay xew-xew yeneen yoo xam ne nit ñi ñoo ko sosal seen bopp te diine santu leen ko du jeex nag dafa bari boo demoon ci ministère bi yore wàllu biir réew mi muy l'intérieur ñi wax na li nekk ci biir réew mi ci ay xew-xewi diine ci at mi maanaam ëpp na trois cent soixante-cinq maanaam ëpp na fan yi at mi lu dem ba baree noonu nag te bu xew bu nekk dara war na caa dugg maanaam alal li nit ñi war na caa dugg ndax faaw ñu financé juróom nit ñi danañ leen ca rey nga wëlbatiku essence bi des na ko ca lakk yooyu yépp di xëy tàkk ci benn bis ñu wëlbatiku ay nit naan la loolu day dolli koom-koom cim réew xam nga ne loolu waxi waxi caaxaan la loolu du dolli koom-koom cim réew Sénégal dem nañ ba koom-koom yi nga xam ne ci la réew yi wër di sukkandiku ñoom yooyu amatuñ ko parce que ñoo ko yàq tabaski dégg ngeen su ñëwee fan la ñuy jële ji ay xar diggante Mali ak Mauritanie pourtant Sénégal dañoo ëpp Mali ay sàmmkat foofu sax Sénégal ñoo ëpp li nit ñi xamul mooy Sénégal ñoo ëppale Mali ay sàmmkat lu tax suñ soxlaa ak jur nag Mali la ñuy dem mooy sunu jur dañ ko yàq te ñoom yàquñu seen jur loolu benn misaal rek ci li xew moo tax boo ñëwee ne ma koom-koom lay dolli yow yaa ngi soxla ak jur boo xam ne tey milliard war nga ko dépenser ci ak jur te amul ci sam réew naaru gànnaar bi ñëw wala malien bi wala keneen koo xam ne moo la ëpp jur nga dem jënd ci moom milliard boobu nekk mu jot ca nga jël jur googu yépp muy ay fas ak ay ay ay gëléem ak ay nag ak ay xar ay bëy nga boole leen ñoom ñëpp rey leen ci benn bis sab milliard dem na li nga rayoon nit ñi mënuñu ko lekk mu yàqu nga ne ma loolu day dolli koom-koom ci am réew loolu jàpp naa ne économiste bu koy wax war ngaa delluwaat ci sa la nga jàngoon xoolaat ko bu baax a baax mbokki jullit yi su fekkee xam nañ ne dellu gannaaw réew wala aw askan mooy seenu lot ci man a fàggu loo xam ne mën na leen a dundal kon su fekkee xam nañ loolu danañ xam ne nun ñi noo ngi ci ak dellu gannaaw bu métti métti lu baree bari loo xam ne moo nu yor tey ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak lu ñuy sol fu ñuy dëkk lépp feneen lay jóge ñëw ci sunum réew te jaadu na nag nit ñi am jom liggéey jàngi gëstu ji ñaq ndax ñi am loo xam ne li ñu mën a sukkandikoo booleeg nag baas bu mag bi nga xam ne moo lal loolu lépp mooy defar doomu aadama ji mu doon ku ragal yàlla ragal yàlla secret boppam la ci wàllu économie boo xam ne nit ñi waroon nañ koo essayer borom bi tabaraka wa taala moo ko wax de moo ne nit ñi bu ñu ragaloon yàlla maa leen di wàcceel ay barke ak i xéewal yuy wàcce ci kaw asamaan si di sottiku di balle ci biir suuf si nit ñi di ci jot kon defaru doomu aadama bi ma tàmbalee woon kon ci la ñuy mujjee moo di ku bëgg a defar am réew moo xam ne da bëgg développement durable boo xam ne dafay yàgg continuer askan woowee faw ñu defar leen ba ñu xam li baax ci ñoom ñu saleen ko jàngal leen ko bañ man faw nga ubbi leen bunt yoo xam ne gëstu xam-xam ak jàng ko dana leen yomb faw nga ubbi bunt yoo xam ne da leen gëmloo ne nit ki dafa war a liggéey door a tedd li ñu tudd kromp ak jarak yàq ak njuuj njaaj ak al yooyu yépp dafa war a raxasu ci bopp yi ba set wecc nit ñi door a mën a doon ay nit ñoo xam ne dañuy jariñ seen bopp jariñ seen askan allahuma inna nasaluka alfiqha fi ddin